ka coon dindee sëriñ fallu maam daam say gëddu feende say booli laay taaj tay rooti dindee sëriñ fallu kumar na ñëw naan galas yaa ña xande faw danaa jooy bay si Abdou Karim Mbakke moo ma gonde sama cofeel ci moom galas ay dóor du ko dinde faw danaa sama cofeel fi moom galas ay dóor du ko dindee sëriñ Fallu dayo waxee maam góor du ko dindee sëriñ Fallu ñun waa Sénégal yow la ñuy galas ca dindee dayo waxee maam ko dillee amul murit amul tiijaan amul xaadir amul laayeen amul canaba ñun waa Sénégal yow la ñuy bànneexoo walu gala sendil ndee gay jamaa biir ko jëndee yara param ba taxaaru fallu moo njëkk a wooteel sëriñ fallu bay sabdu karim moo njëkk a wooteel bu mag bi màggal gu mag gi di yoonu géej salaatu naa bay sabdu fataa falilu salaatuna fi kala tëndinde ku bëgg naan géej galas tey mu jumande sëriñ Falilu di Ibra moo ko ne woon falu baayu ma fàtte moo taxit galas baayu fàttewul loola Seex Ibra Faal moo ko ne woon Sëriñ Fallu bu ma moo taxit Sëriñ Falliloo fàttewul loola Sëriñ Fallu yaatu de Seex Ibra Faal soorool bu mag ba faal magam gi rëy fiiri jaal doyloo nax ma dul xadim sëriñ fallu yaa tudde Cheikh Ibra Fall soorol bu mag ba faal màggam gërëy na fiiri jaal doyloo na nax yow ku la dalaa xamul yow ku la bañ lii wër na Ahmadul Xadim